C'est journée bi wax on s'est réunis il y a une semaine samedi passé sur l'initiative du délégué de quartier il est venu me voir pour nous réunir organiser pour cet quartier rapidement on s'est réunis avec une Réunion. Il y avait mon ak ñu invité quartier bi les gens du quartier il y avait le commissaire commissaire de la Médina il y avait les sapeurs euh, les waa civils, jeunes qui curé l'église. bi le chef de cabinet du maire de la Médina ñëwoon na Et spontanément on a la date d'aujourd'hui tey ak suba

jàppal nañ jàppal nañu si bés bi pour ñu mën a te def def li ñu bëgg surtout en matière de restauration beeg le petit matériel pour mottali pour mottali yi ma yi manqué ñun duñu ne gërëm dina sant mooy te jox tamit à waa UCG mention spéciale parce que wax depuis hier matin dañ commencé avant hier ils ont venu dans le quartier dans la semaine pour def euh, kii des lieux euh, pour euh, après état de état de lieux xool fan moo gën a metti liggéey yooyu mun ci duggee hier matin mi ñëwee tamit une équipe une équipe commencé débalayer

sur ces syndicats de l'UCG c'est le plus bouillant le plus le plus brillant moi, moi, défendre intérêt Avec bien avant bien avant l'idée de quoi. man le délégué de quartier de Gibraltar Mangitoudou Abdoulaye Je vais répondre au mouvement du président li zéro déchet un Sénégal propre si l'ordre que nous ko avec mon quartier mais am na ñi nga xam ni ça je le dis à haute voix il y a monsieur euh, monsieur Ba il est venu me renforcer un coup de main il m'envoie ici ses éléments ñëw nañu ñoom en masse ñëw nañu mon quartier est sorti quartier bi ñëpp ñëw nañu euh, Gibraltar 1 Gibraltar 2 Gibraltar 3 je suis leen di parce que timidement enfin lu ñuy wax lu ni kenn dara nee nañu lam su su yëngatoo dafa fekk dafa am yeneen lam yu ko fekk si sama wa quartier ak ñi ma dimbali Cheikh Ba beaucoup aidé épaulé na ma nag donc je le remercie vivement c'est le c'est ñëw na tamit euh, Seydou Gueye tamit ñëw na je le remercie vivement parce que nit manul kenn dara dooleel nañ ma renforcé nañ ma maa ngi leen di gërëm maa ngi leen sant di gërëm na sama population parce que ñom ñëpp génn nañu en masse